depuis démb euh, ñun waa DER ah, di lëkkaloo ak euh, suñu ay partenaires notamment coopération luxembourgeoise dañu ñëwoon fii ah di def ay ay ay gëstu di caytu lu ñu tuddee euh, l'agriculture numérique jéem a xool aujourd'hui l'agriculture numérique au Sénégal lu ñu si jot a def fu ñu si toll jéem a xool les difficultés yan difficulté la la agriculture aujourd'hui numérique am ah suñu daan agriculture numérique nag c'est l'utilisation c'est l'accès de technologies numériques dans si mbay mi mbay mi nag du mbay mi rek euh, dem tool ak yooyu pêche bi si la bokk élevage bi si la bokk sàmm bi si la bokk donc euh, suñ defee daal bilan mën nañ ne résultat yu ñu buggoon am nañu ko parce que réflexion yi macha allah xam-xam génn na fi te aussi acteurs yu fi nekkoon daanaka ñu ils sont représentatifs maanaam dañu représenté nañ quasiment acteurs yëpp yu yëngatu si wàllu agriculture walla si wàllu numérique. gëstu bu ñu def aussi euh, gis nañ ne euh, malgré que am na initiative yu bëri vraiment. Euh, acteurs yu bëri ñu ngi def ay initiative ñu di créer application gouvernement du Sénégal aussi am na initiative parce que aujourd'hui on a des infrastructures numériques et cetera mais gis nañ ne am na ay gàllankoor am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi eh, wax naa ko sànq eh, mbiram accès à l'information ah gis nañ ne daal vraiment jafe-jafe la gis nañ ne également les utilisateurs parfois dañu am jafe-jafe pour mën a utiliser application yooyu te du application kese rek c'est technologie yëpp la du application mobile mais toutes les technologies su ñu waxee agriculture numérique c'est toutes les technologies y compris les applications mobiles gis nañ ne également que war nañu gën a lëkkaloo war nañu gën a lëkkaloo yi ah créer ay synergie pour mën pour que agriculture numérique pour que l'utilisation des technologies gën a jëm kanam. par rapport à ces deux jours ce que je peux dire en tant que euh, chargé euh, de start-up c'est que nous avons beaucoup appris a eu beaucoup d'échanges qui nous ont permis de comprendre compris avant ou que nous n'avions pas connaissance. Et juste pour ça, euh, je remercie la DER parce que nous avons pu avoir des possibilités de réseautage, de rencontrer d'autres startups comme nous, mais aussi de rencontrer des euh, personnes qui pourront ou des investisseurs qui pourront en quelque sorte nous aider à aller beaucoup plus en avant. Et pour nous, c'est très important parce que d'ailleurs, avec la coopération luxembourgeoise, nous avons une moyen, un moyen, autant pour moi, d'aider et de faire en quelque sorte avancer les, entrepreneurs. en tout cas, en tant que start-up qui travaille sur euh, l'agritech, euh, pour nous, c'était, c'est, c'est un thème, c'est un sujet qui est venu à point nommé, sachant que actuellement nous sommes dans une période au Sénégal où l'agriculture numérique doit être au devant de la scène. Nous ne pouvons pas faire de l'agriculture aujourd'hui sans euh, insérer ou parler de digital dans ce cadre-là. Et pour nous, c'est un thème qui a été choisi à nous, start-up ou à tous les start-up déjà, mais à nous, les start-up qui travaillent déjà dans, dans l'agritech, de permettre aux acteurs et aux agriculteurs, aux producteurs, de comprendre en quoi le digital peut être important dans ce secteur qui, avant, peut-être, on ne considérait pas ces questions-là. tey ñaari fan yi ñuy dund dafa nekk ñaari fan yi nga xamante ni dafa riche trop en information surtout lu jëm si wàllu mbay mi mais bay bay nag ci beneen anam bay bu nga xamante ni tey baykat bi duñ ko bàyyi moom kese mu dem mais dañ naan ko ah yow kat baykat na lu nga xamante ni. dina la mën a gunge ci maanaam résultat bi ngay xaar muy euh, euh, l'application des de la technologie numérique maanaam maanaam jumtuwaay yu bees yi xarala yu bees yi nu ñu koy mën a dugalee ci biir mbay mi pour mu yokk ko ñaari fan yëpp ci loolu lañ doon waxtaane waaye waxtaan nañ ci pàcc yëpp li nga xamante ni moo fi nekk ci wàllu xarala yu bees yooyu noonu waaye aussi tamit xarala yi maanaam li ñu am muy limite limite yi nga xamante ni maanaam fi nga xamante ni moom seen kattan fa la mën a yem. ak nu ñu dem nu ñuy def ba kattan googu noonu ñu mën ko gën a yokk pour que béykat bi mën cee gën a gis boppam. bon ñu ngi gën a xaar nag si DR DRFJ parce que ñun dañoon fi présenté aussi benn entreprise bi ñuy wax la laiterie du Delta mu nekk entreprise bu nga xamante ni création ci ay localam ak matériels yi mu jënd ci grâce ci financement wu DER la ko jëlee ak ses partenariats donc ñun li ñu ci xaar mooy que gën a yokk suñu productivité euh, productivité maanaam li ñu doon produire ñu yokk ko. ndax dañ daan def euh, soow yaawur ak laykaye bu ñuy wax soow bu nga xamante ni dañ koy woyal noonu jëlee ko si nag yi waaye si dañu bëgg a jóge si point boobu dem ci léegi fromage ni ñuy defaree fromage ak yooyu yëpp te loolu noonu si accompagnement maanaam DER bi ak ses partenariats de l'Union européenne et de de Luxembourg loolu moom dinañ mën a permettre ñu niveau boobu ñuy xool di ko viser ñu mën fa àgg.